من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجب له إلى يوم القيامة الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف العالمين سيد الأولين والآخرين نبي الرحمن allazi arsalahu llahu rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa mawlana muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'du ayyuha almushahiduna alkiram fi télévision Sunu Label TV nuhayyikum bi tahiyatil islam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 santaat sunu boroom mi nu ko mayati julli sëlmal ci sangu àdduna ak laaxira sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam nuyu leen ziyaara ñëpp ndokkeel ñëpp sàkku ci ñëpp ay ñaan waaye ñaanal ñëpp yal na yàlla defal ñu jàmm ju yaatu tàbbi nañu ci semaine bi yal na yàlla may nu di ñu dund ko sutura ñaan réew mi yàlla dolli fi jàmm ñaan sunu boroom ñi fobu jëm màkkatal mu karam yal na yàlla yóbbu ñëpp ci jàmm ñu bañ benn jafeñ-jafeñ yàlla dogal nu bàyyi fi jàmm delsiwaat fi ci jàmm fekkaat fi jàmm xeet gi ñuy dëkkmal ginnaaw aj gi te mooy iidul adha ñu tuddee ko feetu tëbaski yal na yàlla yombal mbir yi yal na yàlla yombal mbir yi yal na yàlla ubbi buntu xéewal yi way jur yëpp yal na leen yàlla may ndam ci njaboot gi te mooy may leen wërsëg nu mën a bégale njaboot gi parce que lépp mbégte njaboot gi rek lañ ciy wër yal na yàlla def wërsëg wu kenn ku ne mën a sagale njabootam bégal leen ca yow mën a sunu borom na yàlla dimbali leen ko parce que jullit kenn ku ne Moussa bu sañoon ci ñun feetu naw feetu waaw ku sañoon mbokk ku sañoon sooy feetu julli ab julli nan lay feetoo nawleem feetuwul ah sañoon sooy feetu sa nawle feetu te sa nawle mooy jullit ni yow ku sañoon sooy feetu sa nawle feetu yal na ñëpp am xar ku ne sax yàlla na am xar mi mu bëgg xam naa mi waaye waaye jar na ñaan mu ku ne na am bi mu bëgg ku ne yàlla na ko yàlla may bi mu bëgg yàlla na am lu mu sagale njabootam yomb na sunu borom yàlla nañ ko la dimbalee nañ ko ñaan yàlla yàlla yore na ko te moom doyewu ko dara te pour ñun la nañu ko ñaan mu li ñëpp yàlla su ko su ko su ko ay jaam àndandoowee jox seen bopp li ñu soxla yépp yomb leen walaw ann ahlal qura amanu wattaqaw la fataxnaa alayhim barakaat min assamaa'i sunu borom nee na yéen a ma bàyyiwul xel rek mais bu ngeen ma bàyyi woon xel mm. yéen ñëpp jox ma seen bopp xoolal sax ni yàlla waxee nee na ñëpp laay jox xarum ki kenn du daw ba sonn mais bàyyi woo leen ma ku ne ci yéen am koo jox sa bopp joxaleen ma seen bopp yal na nu delloo siwaat sunuy xel jox ko sunu bopp mbokk kii maa ngi woon ci ñeenti ponk yi nga xam ni ñeenti ponk yi nga xam ni ku ko deful ci aj sa aj màkka manqué andi woon naa armal gi mooy jiitu waaye andi woon naa Moussa tawaaf gi bi ñuy tàqali mooy wër gi mbokk yi ñetteel bi ak ñeenteel moo ma dese woon ak yéen ñetteel bi mooy ban asaayu kileb màkk faaw dafa bokk ci pour ajam mat faaw mu dox diggante safa ak marwa diggante safa ak marwa mooy fan fi nga xam ni soo ñëwee ci kaaba gi ci bi daañu la woon parce que tey soo demee dañ lay jiite won la mbir yi ne la ci poto bu verte bii fii mu verte fi ngay tàmbalee jëm ca bërëb bële fa mu verte nga taxaw yëg ni am nga benn tuur soo tourné am nga ñaar ndax sunu boroom moo ne safaak marwa dafa bokk ci aj màkk inna safa wal marwata min sa'aa'irillaahi faman hajjal bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawaffa bihima wa man tatawwa xayran fa inna allaha shakirun alim ginnaaw tawaaf day war ci nit muy tawaafu quduum mbaa tawaafu ifaada bu mu ci doon gannaaw ga day war ci nit mu dox diggante safa ak marwa ndax safa ak marwa kenn mënul dem arafa te tax te doxoo safa ak marwa parce que bokk ci jaamu yàlla ay montagne la am na histoire waaye la may wax rek day jël temps bi te dama bëgg di daw charte yi ñu koy xam ponk yu ñu koy xam diggante la boo xam ne yonent Yàlla Muhammad su daan ñëw parce que moom la ñëpp di royee mbir yëpp ci moom bu daan ñëw di dox safa marwa dañ daan jékki-jékki ñukki ñukki safa ak marwa lana ko waral mooy am na ci diggante bi foo xam ni daraan am ndox <laughs> loolu nag ku dem tey doo ko xam <laughs> waaye li téere yi wane mooy yonent bi bi muy ñëw di def tawaaf di dax safa ak marwa am na ci diggante safa ak marwa foo xam ne ndox dafa daan am suñ daan yegg si ci ndox mi yonent bi danaa wax naan dëgëral leen seen tànk wane leen ak njàmbaar ngir lan yéefari màkka yi bi gaa nekki nekkee na dañ daan wax naan naxikat hum xuma yashriba jullit ñi amatuñu doole parce que climat yooyu ba moo leen yàqal seen moo leen yàqal seen seen kii moo seen yaram ba seen yaram yàqu na amatul doole yonent bi daan leen wax dindi leen loolu moo tax rasulullah buñ daan dem ba yegsi ci tawaaf ba yegsi ci tawaaf gi wala ñu yegsi ci safa ak marwa fuñ ca daan yegsi yonent bi daan wax naan rahimallahu imra'an ra'a fi nafsihi jalaa waaw yenent bi daan wax ne yàlla yërëm na koo xam ne wane nag ñambaar ci diggante tawaaf gi mbaa diggante wër ka mbaa mbaa diggante safa ak marwa wane nag ñambaar te mooy lan dox na dox bu dëgër mbaa dëgg na ay tànkam mbaa daw na sax moo tax nga gis ñu naan faaw am diggante bu ñu daw diggante boobu ñuy daw nag tey la ko fa nekkoon la ko fa la fa andi woon newatu fa ndox fa nekkoon mais tey amatu fa <laughs> dañ ko daan daw moo tax da ngay ñëw ñu won la ko ne la ci poto bu verte bi la tàmbalee woon ba ci poto bu verte moo tax foofu dëgëral tànk la laaj loolu mooy dox diggante safa ak marwa parce que yéefari màkka ñoo daan wax jullit ñi de ñoom mujj woon néew doole amatuñu kàttan ngir climat yashri ba moo leen yàq mam si xaj mal nag ci nettaleem nee na d'accord climat yashri ba teg na leen feebar waaye néewul leen doole ndax yonent bi xëy ñaan kilima yashriba bi nga xam ni moo andil problème sahabatul kiram yi jóge woon màkka na jóge ci màkka Medina ba ko yonent bi ñaanee rek ca la kilima boobu jóge Medinatul Munawar daal di dem ci côté Juhfa ndax Sayyiduna Muhammad moo ko ñaanoon Alaaji Maalik nee na xawoon na dem sax ba lottal Bilaal ak ñoom Ammaar ak mboolem ñi nga xam ni njabootu Abubakar lañ woon te féete woon këram wa mawlaya sayidi siddiqi xat waika këhu waxat kaana fi baytin zawi hadami Cheikhul Xaaj Malik bi mu koy nettale ci xilaas wax na ni eh, dem na ba jural leen tawat bi ñuy doog a ñëw Madiinatul Munawwara wastawqama taybata garraa ummatahu hawaauha lam yuwaafiq min madaajihimi li tax mooy jóge nañ ci dëkk ñëw ci dëkk boo xam ne ñaari dëkk yi seen climat nuróowul Moussa nag ku jóge ci misaal France ñëw Sénégal climat Sénégal ak France mën na bañ a bokk mën na la andil tuuti difficulté moo xam soj mën na la dugg moo xam yaram muy métti moo xam kazalika yu mel ni yooyu wa xaala habib ilayna rabbi taybatana ko xubbi makkata ummi ruxmi wa rahmi bi nag biñ ko waxee ni Aboubacar xaw na tawat euh, ñoom Bilaal wax ko gaay yonent bi la ci la tàmbali taan ñaan boromam nan ko yàlla maa ngi lay ñaan ni màkka meloon ci ñun fexeel Médinatul Munawwara mel noonu ci ñun ci neex ci wér-gi-yaram ci wàllu climat amal waba min du'aail badri muntaqilan an il madinati naxwal juhfatil adami mam Cheikh Hadj Mal nee na euh, feebar boobu duggoon gars yi ndax climat bu ñàkk rek le ci yonent bi taxaw rek demaan boromam ñaan ko ko ne ko climat bi dàqal ma ko mu génne Médinatul Munawwara dem côté Juhfa nee na ci la climat bi génne Médina dem côté Juhfa kon climat boobu la waa Màkka doon sukkandiku di wax ni mu néewal doole gaa yi ba gaa yi mënuñoo dox normal gaa yi dañoo néew doole yonent bi na leen bu ngeen ñëwee nag wan leen leen ni néew leen doole moo tax diggante Safa ak Marwa dëgëral leen seen tànk moo tax mu am fu ñuy daw tawaaf gi tamit wan leen leen njàmbaar yonent bi daan wax naan rahimallahi imra'an ra'a fi nafsihi jala yàlla de dana defal yërmande saxaaba bu ñëw fii wane ak njàmbaar mbokk yi nag loolu mooy rogalaat ba tey képp ku dem màkk wane njàmbaar yëgal ni yërmande yàlla tàbbi na sa kaw maa ngi koy conseil kuy dem maa ngi koy dénk kuy dem wane leen njàmbaar bu kenn wane tayal bu kenn wane yaafus ku ne waneel njàmbaar te xam ne yonent bi ñaan na ci ba pare nee na ku jàmbaare ci kaaba gi boo ñëwee ci diggante tawaaf ak safa ak marwa nee na nga jàmbaare ca ne yëgal ne sama borom jël na yërmandeem gi këpp ko ci sa kaw kon yal na ko këpp ci sunu kaw ujaaji mbokk yi ban mooy ñeenteel bi nga xam ni nag moom it mënul ñàkk ci aj gi ku ko deful aj gi dootul du wér mooy nag mbokk yi taxawaayu arafa al wuqufu arafa moom mooy ñeenteel bi taxawaayu arafa su ko nit defee rek aj ga mat na ndax danaan kon armal naa tawaaf naa dem naa safa marwa taxaw naa arafa mbokk yi ñeent yii de heure bu ko nit defee ne yëg ni li ma doon dagaan ci sama borom ci aj gi defal na ma ko taxawaayu arafa mbokk yi loolu bëccëg la ma nga noonu tabar fa kàllaa nga xam ne yonent bi daan na wax ne alxajju arafa aj gi nag na lu yëg ni fi muy nangoo mooy ci arafa dafa la aj gay tëjoo moo tax bu ñu demee arafaat bu nu wàññeekoo aj ga jeex na mbokk yi foofu nag ca la feet gay tàmbalee man taraka waajiban min waajibaatil xajji ataa bi hadiyin fa in lam yajid saama salaasata ayaamin fi lxajji wa sabaatan iza rajaa yeneen ci des nag mbokk yi ay wareef la rek yu war ci biir aj ku ci deful nag ci wareef ya benn boo xam ni daf la manqué ci biir aj jotoo ko caa def te defoon nga yii moom aj ga na xanaa rek lañ lay sartal ni rayal hadiyu ndax defoo benn farata boo xam ne farata la woon waroon na la ci aj gi lu dul ba mu des ñeent yi moom ma limoon sagam def nga ko yeneen yi ngay dégg yëpp ñu la dafa war ci aj soo ko deful rek charia du la wax amoo aj mais rek day am lu la daan daan mooy haddi yu gu muy teg sa kaw loolu nag du ñàkk dinañ ci gën a détail mbokk yi ci bu ñu dajawaatee mbokk yi nag aj gaa ngay mate ca taxawaayu arafa su aj ga matee mbokk yi la ca des nag mooy fet gi ci ngeen tàmbali nag gis ni su meeku nañ nag lañu ñu laayoo woon ñëpp nag aj gi jeex na ku mu neex mën nga solaat say yére léegi nag ñu tàmbali nag waajal li ñuy wax al iid te feet googu ñu tuddee feetu tabaski mbokk yi ñetti fan yooyu di euh, yowmu xajji yowmul wuquuf la arafa ñu tuddee ko yowmu arafa mu taraawix ak yowmul iid mbokk yi maag yéen bu ñu dajawaatee faaw ñu waxtaanee ñetti bis yooyu mooy lan arafa taxawaayam ak ngëneel ya ca nekk mbokk yi woor ko yow mi nekk ci réew mi la mu la mën a jural ci ay ngëneel waaye bisu arafa la mu làmboo mbokk yi ci yiw ak ay taraanga yoolu man ak yéen bu ñu dajawaatee incha allahu rabbi suba dañuy waxtaane fadailu arafa ngëneele arafa lañuy ñuy waxtaane te mooy ñeenteelu ponk bi nga xam ni mooy ponk aj di taxawaayu arafa waxtu wi mbokk yi dab na ma damay teg baaraam gërëmaat ñëpp santaat ñëpp ñaan sunu borom yàlla na yàlla mayun tawfiix ba nu dajawaat maag yéen ci jilsatu nabi di jotaayu Seydina Muhammad bi ñaan xanaa sunu label yàlla yëkkati ko ñaanal sunu directeur Hadj Makhtar Sylla yàlla taxawu ko yàlla gën ko kattanal yàlla may ko doole yàlla defal ko jàmm ju yaatu comme ni ko yéenee jàmm yàlla yi kenn gënu ko ku mu seen yéene na la teraanga yéene na la jàmm yéene na la mbaax ñuy wax ne nag nit lu mu yéene nit ñi na too xaar ko yàlla dina ko ko jox moo tax lépp li mu yéene nit ñi yàlla dina ko versé te ku ko xam-xam ni ku yéene nit ci kanam la koo xam ne nag heure bu yëkkatee nit ñi teg leen ci kanam moom duma mas des ginnaaw ndax nag yonent bi moo wax ni su ngeen bëggee am taraanga yéene leen ko nit ñi su ngeen bëggee am mbaax yéene leen ko nit ñi su ngeen bëggee am réussite yéene leen ko nit ñi na yàlla taxawu ko biir ak biti taxawu personnel bi yëpp nga xam ñu ngi taxaw ci wetam di ko jàppale ma teg nuyoo yeeg ziar ci loxol soxna Ayda mu yóbbaale ñëpp géew ñaan borom xam-xam yi yal na la may ñu ñuy wéralante te bañ di werante ñaanal sunu mag alxaaji Idrissa Diop wa rahmatullah alayhi tafsir Oustaz Oumar Diop mu yóbbaaleel ma borom xam-xam yi géew yóbbaale rakkam yi géew yal na la teg ci yoonu jàmm ñëpp ngeen dem ci jàmm del siwaat ci jàmm ak mboolem ujaaj yi ngeen ko bokkal yëpp gërëmaat santaat mboolem soppe yi xarit nga xam ni Euh, dañuy jot message yëpp yàlla xam na ko di jot tabarfakalla kàddu yi euh, ñëpp rek xam nañ ne tax encouragement suñu digganteeg ñoom ak cofeel yi dox suñu digganteeg ñoom ngir lislaam ngir diine ngir yonte la Muhammad yal na la sàmmal nu kóllëre googu ba seytaane bu mu ci am wàll ba nu toog aljana di ko waxtaane man ak yéen bi jaayi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam dañuy tënk rek moo tax duñu bëgg a tudd kenn waaye ñëpp la ñuy jot seeni appel ñëpp la ñu jot seeni tabarfakalla eh, message maa ngi ñaan borom bi yal na yàlla safoo leen comme ni ngeen di safoo waxtaan wi léegi ma wax ko ma ne déedéet du Oustaz Taha waaye waxtaan wi la waxtaan wi nag Oustaz Taha moomu ko alquranul karim la ak xadis ak waxi mag ñu baax ñi kon ñoom ñoo ko moom yal na yàlla téye ñu ci diggante boobu ba nu dem aljana maag yéen toog di waxtaanal waxtaan wi ñu doon waxtaane guddeeg bëccëg iza aradtum salaamatal ardi fattabi'u muhammadan wa rihayatan mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh wa man adallu mimman yad'u min duni llahi man la yastajibu lahu